إلى الآن تندقلو الخليف مولانا الشيخ أحمد التيجاني شيخ إبراهيم نياس خليف جنرال دلا فيضة تيجانية الشيخ الإمام أحمد تيجاني علي سيسي إمام راتب مدينة باي الشيخ محمد الأمين شيخ إبراهيم نياس ريبريزنتان خليف بفي تندكارو شيخ محمد المنحمين شيخ إبراهيم نياس بريزيدان ناسيونال جمعية أنصار الدين جمعية أنصار الدين بأمبو نينتي ديبارتما يتندكارو نيو عندك mbégte ci di leen yëgal gàmmu jëppal gi ñuy taxawee at mu nekk ren ñu jàpp ko altine le 20 avril 2020 ji ñu dëkkmal en direct online ci mbooleem chaîne YouTube ak internet yi ci pays bi buñ demee ba ci bés ba di altine le 20 avril 2020 daañu ànd ak yéen ci zikkar Babacar cam Baba Ndiaye a Cheikh Ibrahim Ndaw Zakir teg ca ouverture gàmmu gi ci jàng lenn ci ayatul Quran al Karim ginnaaw loolu dalal gan ñi ak coordonnateur bi di Alioune Lopez ginnaaw loolu itam da ngeen am online muy en direct bu am solo ki ko nara a waxtaanee di al oustaz abu Bakrin Omar Raqiñang muy waxtaanee ci janoo ak jàkkaarloo waxtaanee ci face à la crise de Covid 19 maanaam jàkkaarloog li nga xam ne moo di mbas mi fi xew ginnaaw loolu ñu ànd ñun ñëpp daal di teewlu kaddu ko président national jamiyat ansar diin mu di cheikh Mouhamed Mounhamid na cheikh Ibrahima Niass buñ ci pare daañu am kaddu ko cheikh Mouhamed El Mahi Seydi Ali Cissé porte parole bu xadra al Ibrahimiya ci islaam ak solidarité buñ ca pare ànd ak cheikh Mouhamedul Mahi cheikh Ibrahima Niass mu nar a waxtaanee. prévention et sortie de crise les enseignements de Cheikh al Islam al hajj Ibrahim Nias, Mouy fagaru ak fexe ba génn ci crise njàngale yi ci Cheikh al Islam al hajj Ibrahim Nias, joxe ginnaaw buñ ci jugee daañu ànd ak Cheikh Mouhamadul Maki Cheikh Ibrahim Nias, mu jaar ak taalibe yi fam daan jaar ak ñoom ci gàmm gu nekk buñ ca jugee daal di teewlu xatmul Qur'an al Karim bi ak message bi nga xam ne moo war ci Mawlana Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh Ibrahim Nias, représentant xalif bi ci ndakaaru ak ci taxawaayam mbokk yi ñoo ko déggandoo nii lañ ko fas yéene ànd ak yéen ren ci gàmmu jëppal altine le 20 avril gi ñu dëgmal ngeen mën ko am online ci mboolem chaîne YouTube ak internet yi ci pays bi ku nekk mën a toog ci këram seetaan en direct gàmmu jëppal ci online chaîne YouTube ak internet yi ci pays bi di leen fàttali resté chez vous kenn ku nekk toog ci biir këram ngir mucc ci mbas mi